asalaamaaleykum les gars ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santama gars yi comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne activer la cloche ngir jot yeneen vidéo surtout gars yi liker leen commenter partager Sadio Mané ah félicité na Edouard Mendy gannaaw sacre bu Chelsea ca Ligue des Champions ba gannaaw bi nga xamante ne Sadio Mané moo ko remporté avec Liverpool 2018 ren Edouard Mendy avec Chelsea 2021 moom Sadio Mané gannaaw bi mu nekkee premier sénégalais bi nga jël. delloo na njukkal Edouard Mendy ne ko mérité nga ko yow bi yaay monsieur clean sheet yow yaay maître clean ndaxte Edouard Mendy ren dafa wane fulla fayda joma ci Ligue des champions bi wane boppam wane jukkee gaynde njaay wane li nga xamante ne mooy xadar wane leadership remporté Ligue des champions neuf clean sheet loolu tax Sadio Mané woo ko wooye ko monsieur clean mu ne ko Edouard Mendy mérité nga ko ndaxte da def fulla fayda jom moom Sadio Mané noonu la félicité ki nga xamante ne mooy Edouard Mendy muy coéquipier am en équipe nationale Sénégal ah kon lii lañ doon xaar ci Sadio Mané mu félicité Edouard Mendy kon gars yi lii la woon di leen wax ngeen continuer abonné ah liker commenter partager.